Euh, Kader recadré na wala boo ko euh, mën na am ma juum ci loolu yi wala Kader wax na xalaatam euh, ci Bougane mi naroon génn tey jii ci ngoon gi te xamul lan la PM di wax ak nu mu ko war a waxee ñu bareet ni sax PM daal waxam jooju dara laalewu ci ak politique ku am xel da ngaa war a toog déglu Kader ñu déglu si waat. dañuy gis ni ki nga xam ne moo di lépp leader de gëm sa bopp dafa bëgg def conférence de presse jaru ko. Mhm. non il n'est pas le porte-parole de l'ancien régime mu xam ni rendez-vous suba bi. Mhm. c'est pas rendez politique. Mhm. c'est un rendez-vous boo xam ne ni c'est l'autorité moom moo war a wax ak sa population. Mhm. def la situation c'est pas rendez-vous gatsa gatsa entre le responsable de Pastef ak de gëm sa bopp à un moment il faut que nga xam taxaw il faut que demain que Bougane se calme et bu ko mënee annuler ñu annuler xamaguñu nag le contenu de lan mais ci lu ñu supposé moom mooy c'est juste pour jël le contre peut-être. du conférence de presse du gouvernement si ça porte sur ça waaw su fekkee ci loolu la porté wu mhm. na ko non non non j'ai toujours soutenu les conférences de presse de Bougane mais cette fois-ci pourquoi je dis que ni jaru ko mhm. parce que c'est pas un rendez-vous politique l'opposition non yow yaa jàpp ne day day contre fële mais mais comme ñi dañuy wax askan moom aussi bu ñu bëgg a wax askan rek mais dina ko def dina ko def ah. hmm. am na largement le temps li changé ci donne bi mooy actuellement il n'est plus libre parce que léegi dafa nekk en coalition et boo xasee ba dugg en coalition sa ay génn sa ay lépp donc maîtriser loo ko il faut vraiment nga agir en groupe mënu wax en tant que non non xaaral en il faut qu'il mi ngi noonu xam naa ni waaja da ko yëlab sànniwaat ko te jëlee Assane <laughs> lii mooy kàdd yi nga xam ni moom la euh, euh, euh, Kader yëkkati tey gis nga li mu jiital mooy Bougane nag du porte paralu ancien régime bi. il faut nag mu teey yorul seen kàddu te lii nag dafa sérieux warul nekk lu ñuy politiquer. Hmm. na bàyyi conférence de presse bi mu naroon wax. waaw Kader ñoo ngi koy nuyu di nuyu Mbappé moom nga xam ne moom la toogaloon di Ahmadou Bamba. Euh, ñu def émission bu am solo Kader it war naa xam ne palaato bii palaato buy defar la. bal plateau bii ñu toog palaato buy defar la tey plateau bu comprendre nit la. bii waaw ndax démb ba léegi gis nga ab vidéo bu ñuy am waaye mais yow sax bi nga si jotee da nga ne di njuumte la. waaw dama ne jarul teg. njuumte jarul jarul fësal. jarul fësal mu koy gën a. voilà muy lu am solo nag kon nag gis nga ko lii nga xam ne mën nañ see waxtaan nag ñu jàpp ne du njuumte moom nga indi teg ko si taabal bi. <coughs> Mhm. waaw Kader nag wërta na wax lii. ndax waroon na bàyyi Bougane dem def wax ndax Ousmane Sonko boo dee xool président Macky Sall masaan di wax day dem CNT bi wax. waaw te Ousmane Sonko moo ko daan ëpp ay bii fuuf président Macky Sall te buñ dee waxtaan bu nit ñi noppee wax Ousmane Sonko la ñuy wax bàyyi waxi président Macky Sall kon nag foofa la teg tànkam nañ ko bàyyi bu ngoonee bu Ousmane Sonko ñoom di di taal moom mu taal buñ nee deer ñu ni deer bu soobee yàlla dana am ay moo leen di ëppale ay bii moom la nit ñi di gën a seetaan. te buñ noppee ay waxtaanam la ñuy waxtaan. mais moo bokkul Assane. Hmm? contesté yi ñoo bokkul président Macky Sall bu daan génn di wax ci bilan am lay wax ak def yëf. Hmm? kii nag dafa génn di wax loo xam ni non ah? bàyyi rek bàyyi rek moom mu génn wax. <laughs> <laughs> bu leeral. waaw jërut leeral jërut <laughs> kii yow nañ ñëpp taxaw rek. lu asal yooyu nag non ñëpp àndandoo rek nangul ko non <laughs> ah, nekk leeral lool day kii bàyyi noonu. yow na ko na Ba jël mu toog wetam yow sorewul non non ah, non bàyyi ko mu génn rek def sorti mais garaawut nga bàyyi rek xam nga moom xaj na am na programme bu mu war a wax. nañ ko bàyyi moom mu génn wax ginnaaw nag ginnaaw nag démb lañ ko jàppoon kon ñii jàpp far xuma Ousmane war a dem si affaire bateau la Joola bi xam naa ne kon moom it day puus basam moom ah normal ah, na ko mën naa mu dégg ah. nekk ak ay nit bu ñu ko waxee seen xalaat mu bañ waaw ah, bu fekkee ni daal en tout cas lu mu war a def la na ko def na woo télé yi xam naa site internet yëpp moom moom la ñuy jël waaw ndax gis nga ko saa bu toogee la koy tiim si ay site internet te ñun ñiit xam naa ne waxal Fall ñëpp non mais amaaduñ heure bi est-ce la war a même heure ah, dañuy déclenché ñu waaw daa lu ki PM di wax. ah daa xam mu wax ay waxi boppam moom la Sénégal yi di xaar. mooy njiitu opposition bi kay. baax na na taxaw kaat na bàyyi bu Ousmane Sonko ñoom naan salaamaaleykum rek incha allah après Fallou dem fa. waaw bu ñoom Ousmane naan salaamaaleykum moom mu ni salaamaaleykum ñun ñu xool ñun ñu àtte waaw loolu di am na aljuma am na. yow da ngay dimbali bu baax wala da nga koy koy dimbali dama ànd ak moom si mu def na def rek xam nga am na yoo xamante ni il faut nga def doo ko xam. il faut que tey jii lii la war a mën a natte boppam. bu nga xamagul lu kii di wax. waa xam naa ko dama ne si la war a natte boppam. ay laay. non non tey jii la war a natt boppam maam bu fekkee Ousmane gouvernement bi ñëw na xam gouvernement bi tey jii bis bi mi ngi mel ne équipe nationale moo dem final. waaw tey moom moom la ñëpp def moom si nit ñi mi ngi mel ne moo dem final wala Modou Lo ak Balla Gaye yi bëree maam saaru bis boobu la ma jox. Hmm. ndax koo gis maan ay ngoon ay ngoon ay ñëpp ngi naan ngoon senegal gépp naan ngoon ngoon ngoon. Hmm. kooku nag boo ñëwee ni ngoon googu dama si génn mayit wax kon xam nga sa bopp xam nga sa tolluwaay am nga fit <laughs> kooku nañ ko bàyyi mu dem <laughs> ah. ma ne d'accord wa ah baal mu dem rek. Ah. il faut ñu xam ñu xam dayoom tey. <laughs> te bugaan mi comme Kader wax na ko dafa maa niroog koo xam day day dugg de day dem de. non il mu dem bu demee nañ xam dayoom te bu demuti dañ naan. affaire yi ni Sénégalais waaj mu daw. ma dem même instant lay doon. même instant bu Sonko ne salaamaaleykum mu ne salaamaaleykum Sénégal yi at ti bu tàng waaw. kon nañ nañ nañ ci bàyyi xel lu commentaire naan Karim kii wér na tey Kader wér na waay. ah Kader euh, noonu la de Kader dañ de émission bi daa def wetu wér di def wetu wér. jërëjëf El Hadj. ok El Hadj euh, ndax ci nite comme li Sénégal yi bare bare ba ci ay ñooñam jàpp nañ kat waru koo def. Mm-hmm. ndax jàpp na ci euh, bokk na ci ak nite PM bi war a wax xamagul lu muy wax ak ci nu mu koy waxee mu ni moom itam day wax. waaw waaw tout d'abord Kader est-ce que xalaat bi xalaatam la wala xalaatu bugaan li mu wax nii ndax xalaatu Kader la wala xalaatu bugaan la pour un peu mu am ci këram ñu ko contre kii ko defee gars yi ne këram am na démocratie ndekete li ñuy foog demeewu ni est-ce que du Kader est-ce que nekkul day jouer rôle hmm. parce que mën na nekk rôle boo xamante ne bii da koy jouer euh, waxee nii parce que da ngay déglu ni nga xamante ne bi noonu la waxee li yi di wax ci pénc mi Bougane dafa war a calmer dafa war a def ni dafa war a def teg na ko ci taabal yi bu mu wane ni mooy porte parole kii bi et cetera léegi mi ngi ci coalition dafa war a def nii dafa war a def naa comprendre maanaam. ñu wo liñ ko war a wax feneen. Hmm. ñu wax ko ko ci rajom ak kiyoom hmm. parce que xam naa ni sax li may wax ni mën na yàq dara ci li mu war a wax parce que xam naa bëggoon na utiliser loolu wane ni moom dafa démocrate parce que même sax ci ñi muy liggéeyal temps yëpp ñu ngi may envoyé ñu ngi may partagé depuis démb ba nëgë ni loolu la bëggoon a wax. Eh. ñu ngi may partagé vidéo Kader waaye man nit kii dama nangu mu am xalaatam. lii mooy sama gis te fekk moo ko teg ci slaayu waxtaan fekk ne moom moo teg euh, yëf yi léegi nga yàq nii parce que Kader euh, dafa wane ni bugg ci ñi jege Bougane la loolu la wane waaw parce que ba Bougane di dem fële daf koo yóbbu mhm. ñu ànd kon am na loo xamante ni bii tey bu fekkee ne Bougane war ko parce que Kader bu ne woon waxtaan naa ceeg Bougane nee naa di waxtaan bii nga xam ne moom lay def lii leader u gëm sa bopp parce que boo seetee moom moo souligné mbir bi ne il paraît que leader u gëm sa bopp dafay kii mais jaru ko boobu daf ñoo waroon xam moo ñu ko annoncé boobu mm-hmm. dafa waroon wax ne wax naa ko ceeg moom waaye nee naa ko lii ak lii bu ko def mais moom li ñu wuteeg Bougane nag bari na de ah tuubaat boo xoolee Bougane daa jaar mbedd mi mu jaar mbedd mi waa boobu moom mooy boobu moom mbedd moom mu <laughs> <laughs> mais c'est que dama la bëgg a wax ne rek c'est que yi dafa bari ci euh, politiciens yi quoi dañuy lu ci bari ay scénario la ñuy def. Hmm? waaw di jéem a sëlam askan wi quoi ci façon bu bari waaw. parce que boo seetee euh, tey ci suba bi ma ñëwee dama ne Assane dana ma Kader ce que wérut. ngir muur bële. Hmm. Ah, waaw waaw mooy béjjàn. waaw est que wér-wér lu wut ngir muur hmm. boobu. waaw <laughs> bële moom njuumte la parce que bële dafa waxee noo xamante ni bii euh, erreur la wax mhm. euh, mais bu fekkente ni bi tamit euh, am na ci preuve tamit mhm. buñ ko jiwee war naa mën a alaaji bàyyil foofu rek parce lu leer lañ bëgg tamit parce que li wax noonu xam nga nit boo ngi ni sama téléphone noo mën naa bañ a nekk njuumte nee na amul bàyyi mën naa léegi dellu ci discours mën na nekk ni moom dafa taxaw pour dénoncer sax waaw ñëw ci discours bi bul jàpp ne njuumte la waaw ñëw ci dénoncer gars yi mën na nekk ni dafa am ñu mu bëgg a dénoncé. waaw léegi ñëw fekk am na preuve moom war na ah, yow. dama na yaa ne lii nañ ko jéggal. daa juum mais dama waaw ah, non a taxaw. mën na mën na nekk loo xamante ne bii tey mën na bëgg a mën na bëgg a yoole. waaw <laughs> léegi daal kon nga wax ne léegi moom bu lii bugaan mën na cee. en tout cas loxoom génn foo nit ñi xaw cee teey mhm. parce que gars yi mën nañoo def benn kii boo xamante bi ñii daal di gisee nii ñii gisee na bu ko defee mu defoon loolu sax ci slide waxtaan pour wane ni waaw crédibiliser génnam wane ni am na ñu ci àndoon ba ci sax ñuy liggéeyee ci sama tele am na ñoo xam ne def nañ ko sax publiquement partagé nañ ma ko vidéo yaa ngi ni Kader a ngi nii man ak moom dañuy wuute waaye terewut bu ko defee gën a kii boppam te fekk ne moom moo ko wax na ko wokk ma fi ma génn fa mhm. wokk ma fi ma génn waaw pour loolu rek naqasaale xam nga yi moom dañoo mën a tappale léegi bu ñu ñëwee nag ci Bougane mhm. ndax dafa war a génn wala war sa génn eh, xam nga yëf yi hmm. tey jii lii di ñëw hmm. eh, moom moo lay wan ne la xamut sax lan mooy mbir yi lan di ñëw parce que li gouvernement bi war a wax jëm ci ñi nga xamante ni bi def nañ naka sudul noonu seenaw yor yi nag yooyu ñu war a teg yëf yi ci taabal ji ngir leeral hmm. loolu moom lu ko ci lu ko ci waaw comprendre si lu ko ci léegi dafa bëgg a ñëw parce que peut-être que ni euh, am na ñoo xamante ni yëf yi dinañ leen laaj dafa ñëw ngir nekk seen avocat wala lan la bëgg a doon lan la bëgg a nekk wala ñëw ngir jéem a politiser yëf yi parce que moom defe naa ne dafa waroon a bokk ci ñi nga xam ne. doon avocat ñan ñi jël. ah bugaan doon doo fi di dénoncé ñi jël. waaw mais waaw tey ñu bëgg a ngir leeral yooyu. waaw léegi nga moom bu ñëwee lan la bëgg a. mais yow wane fi ay kayit ba taay ni diw sàcc la. waaw dugal ko ci banque bi xam naa hmm. référence. waaw man kayitam yooyu laa xamul bu xamul fi mu bi nguur gi li muy coow ni yëpp mënoon naa jëlaat kayit yooyu. bind na ñetti perante daal di na jënd ah. bind na ñetti perante. gis naa moom saa yëpp non non yéen yu maasu yàlla ak yeneen. am na ko itam ba ni banque bi xam ah, naa. fi ko biir nguur gëlëm ñoo ko doon lool. mais bugaan ñi ma wut a défendre ñi alaaji war na xam nga jéem a wut buzz. sama nijaay daf ma waxoon ne ma ba ma yore permis loolu ma wax ne ma bul génn ci génnub jàmbur. booy dawal waaw moom ci génnub jàmbur rek lay génn. Ah, moom génnub génnam moom bugaan. Mhm. génnub jàmbur rek lay génn. ba tey ne point bu ñu léegi nag day bàyyi balaa nit ki di siñaale mu bëgg a génn moom fi mu toll nii eh, kii nee na dina wax rek mu ne dee xam nga. waxoon na yaa ngi ñaan naan yal na wax de man maa ngi patriote di na génn yal na génn muy mujj. patriote nga fan lay mujj moom mm-hmm. Bougane. Mm-hmm. fu muy mujj balaa gars yi di wax mu wax. njëkkalante. ah, ah maa ngi patriote di ñaan naan yal na génn rek yal na bu tàmbalee. xam nga fi mu toll nii keroog annoncé na lu mel noonu te nit ñi bàyyiwuñ ci xel. parce que nee na. avant muy Bassirou Diomaye fay di wax ci la bind li mu war li mu li mu koy toon nee na ci la ko bind. nee na ku dem sama base gis ni xamoon naa li ñu war a kii beneen yoon day wax balaa ñuy wax <laughs> comme léegi tey Assane ne war naa wax li mu jiitu Assane njëkk koo wax fa la bëgg a jëm de comprendre. ah mais yow da nga koy xeral mu ne mu bàyyi mu baal sa waay mu baal gaa yi bañ a génn wala. mu baal gaa yam gaa yi par balaa wàññi seen bii ñi seetaan ñi leen seetaan bugaan comme ça ñun ñu war a seetaan Sonko moom bu dee dem xam nga dañuy dem seetaan daal gis nga man awuma <laughs> lenn lu ma koy conseillé bu ko neexee lu ko neex na def hmm. waaw na def lu ko ah, neex du sa wàññi seetaan keeg yooyu waay na def lu ko neex na lay lay def lu ko neex bugaan mënta wàññi kenn hmm? bugaan amut lenn bay wàññi kenn boo ko gisoon li la koy wan moom lu mu tuddee boppam gëm sa bopp hmm. taxaw fii di wax telem bi topp ko naan mooy leader opposition bi parce que fi mu toll moom lañ gis. waaw ci bu ci wut mbootu dem wut ku ko boot la la la la mujj. lii guñ leader bi de. Hmm? buñ ko tànnee mën naa nekk moom ah waaw waaw parce que dañoo wax ne moom mooy moom mooy leader opposition bi. mu dem fële ah, ah, ah, dañuy bàyyi. non non moom ah, loolu moom. Ah, loolu ah, ko yéen kon da ngeen tas quoi. <laughs> ah léegi da ngeen bëgg a dem ba Daniel Maman ngeen ne eh, dañoo bëggoon a. kii non yow kii yow yaa ngi naan duggaluñ ko kii naan ñu duggaluñ ko ba. <laughs> bugaat yi dañuy ñu xool rek. kii naan ñu ba yow nga naan jiitaluñ ko. <laughs> non non bàyyi jàmbur. na bàyyi bu ñu ko deful na bàyyi de. bugaat mën na fekk mbooloo boo xamante ne bi tey. waaw bu ñu deful fatam na baax. xam nga Xalifa du ko naw Ah, kon mu bàyyi rek. Anta Babacar du ko nangu. alaaji kon mu bàyyi rek Jibril Fall du du du ko nangu. kon mu bàyyi yéen nag la APR doon parce que ñee dañoo am lu ñu indi bugaan amul lu mu indi bi gaa yi ñëwee ku nekk dajale. ne ko yow loo yor mu ne euh, télé. ak mbooloo kon mu bàyyi télé télé bari na mbooloo lool la. yen li APR doon def. en tout cas nañu def foto mënuñu ko mu bàyyi. Hmm? bàyyi foto mbaa bàyyi rek. ñooy hmm. seet nag. léegi nag xoolal gis nga Bougane nag mën naa dem nag ba ba ba du dem élection de attention li Assane di wax nii mooy daje xam nga fi doon dépôt liste yi kii na mën nañ wax photo yi mu ne kon bàyyi naa daal ne xajatu fi. bàyyi naa ba noppi dem def projet de presse am ah, bu boobaa loo ci mag parce que nee na defar liste xaju fi parce que diggante bi dañ maa bàyyi ba nii. Mhm. victimiser wu def boppam victime. Mhm. yaa ngi dégg bañ a dem ci élection waaye daal ne dinañ xool nan la ñuy def ku ñuy àndal ci kii bi. waaw wa ilaa ñooy ñun dañuy neutre gëm sa bopp ku ne na woteel ku ko ku ko neex. ku gañe mu ne foofu la sama gars yi voté defaat point de presse ne sama yëpp wax nañ ma ne ma ñii lañ voteel. Assane Assane <laughs> yow da ngay jàppale Bougane. technique wala da ngay enfoncé <laughs> parce que problème bu bi ñëwagul de. parce que day couleur la woon bii photo. photo noppil rek waaw photo lay mu ne kon man banaa. ah waaw. photo moo sa war a nekk kay photo moo sa war a nekk. waaw photo ma sa war a dëgg yàlla. dinañ bugaan daa xaj ci ginnaaw fa def photo bi gaan. Ah, waaw bugaan xaju ci ginnaaw xaju ci ginnaaw gaa yi de xaju ci ginnaaw kenn. yow tey coalition bu xalifa nekk dinañ jël photo bugaan di ko fa def xalifa Sall nag dina nangu lool. mais loolu xool rek mbooloo mi ginnaaw non non dafay sori alaaji naan ko da naan ko ndax nit ku mës a dem élection waaw dina ñëw di jiite ñu dem élection leen kon ñu bañ see def photo kenn loolu daa mën a <laughs> wala kenn du si ne. yaa ngi tas coalition non non ñu def fa ak garab wala ñu def fa ab déem wala nangam. mais déem def fa benn signe rek waaye photo photo wala nit ku amul. ah déem bu bugaan mën naa wax ne couleur bi dafa xaw a niroog couleur kii couleur si déem bi. <laughs> taxawaay taxawaayu tas tas kii bi ngeen nekk biir coalition yi bugaan bul déglu Sadio bul déglu Assane yow Assane amu boobaat duñ ko nangu buñ ko mën ñu génn ah? Ah, kii di tudd Anta Anta du ko nangu <laughs> kee du ko nangu. ah man de buñ ko nangoo dana ma jaaxal. buñ ko nangoo danañ ma bett wax dëgg fa yàlla. <laughs> jërëjëf.